mbër ma fekk di nuyu waa Galaat boobaa bi di nuyu suñu mbër yi fi teg yëpp ñun bu toogee fii tey yaakaar naa ni fii ñoom maam ma toog a toog ah. man damay wax ni sama waa koñ barki Serigne Saliou Mbacke waaw ma nga toog yaa ngi ñëw barki Serigne Saliou Mbacke fekkoon ne dañ def ko mbër nii rek ah. amul problème man dama see damay at bàyyi mais barki Serigne Saliou dañ ma créé pour Waly Sané lan la dugal ci 1 Giga 1 Giga damaa xam ay këleem xam bëreem xam ah. bi bokk dama jóge ak combat ak yaaw daal. waaw loxo am lu si nekkoon. loolu moo def ma def erreur boobu noonu. mais gis nga si sama yoon. waaw ñi nga jébal laa suba suba suba si may arrangé. dama bëgg ñaan përëbëtal mu def ba suba suba si kàttu suñu borom ma dëppagum dem parce que dafa am lu ma dafa am lu ma soxla jàmbagën dafa am lu ma fay xaar. daa am looy xaar jàmbagën. eh un cigare ci loolu. alhamdulilah bisimilah jërëjëf borom Touba ginnaaw ma seen yàlla li ci yonent bi sax sama ñaari waajur di sant borom sax kii xam nga lan moom boole moom. lan la. CV contrat. déggu ma. CV contrat. bu ah. yàgg bi sama loxo moo wër di woote. waaw di ma laaj. ba yàlla dogal ne ni am ah, kon moom moo la bu fekkente ni kii toogul ba ay ci koor gi di woo foo di saraxu maa foo toog. bu amul yaa nga ma daal. barki Seydina Muhammad loolu gën a yomb tax ko jël combat bi mais kii mu daan yow jaar mi nga xam ne jamono ñoom maam lañ <laughs> ba pare daan man xale bi nga xam ne laa la bul dagg man xale bi nga xam ne lu mu jàpp mooy borom ah. mu jugee waa jaamu ngeen jug waaw tëlimaam jaaro Louga Thiès waaye bu ma limee damay jug man mbërum àdduna la kii mbërum gaabal mbërum la kii mbërum jàpp yabooy ba may daan dama ne la ginax dama ne la dama ne bi nga xam ne maa yow fu mu fekk dama ne la ginax. oui ma dama ne la gaynde fu mu fekk ginax dama koy def lan la ci la may problème. Ah. barke Serigne Saliou Mbacké gis nga kii. Ah. yaa Rasulullaay xam nga da nga doon woote nag dégg yàlla yonent bi bu dee loolu yàlla ma daal ah. barki alxuraan bu lee oona forus nekk nañ bële gars yi ñoo ne ma moom ak ko ñëla barki yaa Rasulullaay dara yaay borom sax man bàyyi fa la maa ngi tuub sax ci waay maa ngi tuub sax ñëpp waat di jégalu mais xam nga lan moo tax wax dëgg dafa baax lii lamb la foola rek kaf ak foola day jeex yaa ngi man bu dee li may wax amul laa wax de a combat maag Bantamba li mu mën si média bi di wax di woo ay chinois jour ba di nga woo siin ma daan leen eh. li nga dégg li nga ngay làkk ma daal la. dégg nga Sinoa dama nekk ak ay Sinoa. waaw déggoo ma ñooñu ñëpp dinañ ñëw mais mënuñoo wax a wax a wax ba yegg ci géew bi. maas kaay kaay sama baaxu maam la. mais damaa liggéey lu tax Sinoa yi di ma di ma supporté. man damaa liggéey lu tax Sinoa yi di ma supporté. Ah. mais damaa bëri ay tàkkusaan. muy neex mais dama bëri tàkkusaan Balla Gaye 2 Boy Niang. ah lii foofu den Modou Lo la Daguerre. yow arbitre yëkkati wul sa loxo arbitre yëkkati wul sa loxo. yow lan nga def si laa bëri la ko def. Ah. man loolu ñaamul naa ko. sa bëri bu gaaw ah, bi bu yeexee laa la bu arbitre bi yeexee ma sifflé combat bi daal la. Serigne Saloum Mbacké bu arbitre sifflé boo génnu làmba ji dama lay rey combat may arrière dama lay kongal si biti bu ma laalee da ngay daw ba jaare barki yàlla bu loxom laalee fii si combat ah. day daw ba jaare ma jàll jàmm gën billahi wallahi wa taala kii maa gën a capable dul boo pare combat bi maa tere wax combat bi a tere wax combat bi maa tere wax cooli dafa bari fi mu jaar gis nga ni mu bëree bokku tax sax man gis nga bàyyi góor bu muy bëri dama ko umil kii bu ma ko génnul làmbañ barki Serigne Saliou Mbacké dana xam nga wuy ma daa am lu mu laal ci bàyyi góor bu ci débat sax bàyyi góor champion la mais bàyyi góor a bu dee ba may bëre moom romb naa kii sapeur sapeur pompier mu ni ma booy booy bëre nga wax ko ko dañ lay ray ci arène eh. boo seetloo bi may bi arbitre bi sifflé billaay ñoom laa ñu ko tàllal loxo mañ xool ma ma jàpp am liggéey bàyyi góor a champion la garçon la jàmbaar eh. moom mënul góor a kii mënul daan yaawu jaan dañ lay wax rek maa bëgg gars yi xalaat bu baax ak seen ay takaay yi nii xam nga lamb la la contact entraîné day bëgg ku ko mu dimbal bi amul fu ngeen di tata man yàlla doo baat doo doo baat ala ko xalaat Barke Serigne Saliou Mbacké ma la tànk yi samp jaaga ndax promoteur bi moo ne toll ak sponsor bi auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim kelte kelte bamba mm-hmm. dëgg dina sa mooma mm-hmm. yàlla jul si yonent sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fii fekkee sama njëriñ xam nga di sant sama gars yi ma àndal nii. Hmm. depuis combat bi mu ba léegi. ñëpp yàlla ñëpp maa indi. dina ñëw bis ba sama gaal la ñuy fanaan chaque jour. Ah. bilaa walaay su ma amee combat du ñu xëy duñ jàngi. ndeysaan gaal la ñuy nekk ba làmb ja. leex adversaire bi. waaw Gose moom day nekk si TikTok bi di vidéo hmm. di wax di yónnee ay gaam sama koñ ñuy teb sama baas. say baas yow signature ñëw ngay daw peloton. boo nekkee si TikTok bi di wax di def. jëf say baas ci boppam la tekki. sama koñ lañ dugg teppi sama baas booy dem seen koñ teppi seen baas tojal leen mbaar ñu daw. ah tax ñëwul moo xam ne tax ñëwul. yàlla. kon tey lu wootee signature da ngay dëggal sa bopp nga ñëw. jour ba loo xëy ndel. waaw jour ba comme dab rek. Hmm. le 22 bii passé laa mujjee fii. arène ah, nationale man ak ah. bébé Fass. dëgg la waaw ah, kon daan. nga bëri fa lu rëy. ma su ma jógee si kii. ñaan naa yàlla maat beneen combat. te goose man taxumaa jóg. nax la tay sama yaram dafa daw. grand Mamor maa ngi koy nuyu bu baax. bi ñuy jàng école Fass dañuy wàcc toog di ko seetaan muy kontaan. ndeysaan. bilaahi ngeen dem ba bokk suul ñu dem ba bokk suul. ndeysaan. dama war a góorgóorlu daan. yaram daw na ko ñaanal yàlla ndam ni ñaanal booy biir mu ndaw ndam ak un ziga. wooteel xam nga. di woo. di nuyu tamit sama grand Vieux Fall ak sama grand Amadia. waaw am ay honorable la yëmbal. Mm-hmm. xam dañuy jàpp si ñun bu baax a baax a baax. di nuyu grand Matar Ndiaye. waaw. na gaaw na gaaw na gaaw. waaw business bi nekk ak kan. waaw maa ngi woo monsieur Thierno Diop. yow lii lépp dafay xaj yow monsieur Thierno Diop maa ngi koy woo waa ma rek. gaawal yëmbal lañ dëkk. monsieur Thierno Diop maa ngi koy woo di woo daan may mën a jonn góor si combat woo si combat bi grand Omar Sow maa ngi koy si combat bi di woo Omar Yaa Sow. monsieur Baara Gaye maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si billet yi xam nga. ñoom solo gaa yëpp. maa ngi leen woo si combat bi ñu jàpp si combat bi waa gon bi ñu laa tuddee combat bi xam nga di woo monsieur Laye sama mag honorable Codé Sarr ak Pape Sarr maa ngi woo di woo tamit xam nga monsieur Abdou Soli ak euh, grand Modou Kane grand vieux dem Diefal. Mhm. maa ngi koy woo. Mhm. Bokar maa lay nuyu bu baax a baax a baax xam nga. Mhm. di woo sama mafia yëpp waa gétt gi. gars yi di leen si combat bi. di ñaan yàlla may ma ndam. di woo ñëpp di woo Abdou Soli. ak Mbaxaan maa ngi koy woo gis naa ni ñu si combat bi. sama grand Babacar Sall. maa ngi koy woo ci combat bi xam nga. di woo Bala Seck xam nga di woo ah. mais nag man man maanaam man combat combat bii ñu jëm man moo ma jaaxal ah man lu tax rek def beruñu ko sax def ko grand combat rek leneen la. mais promoteur bi lii lépp pour te ak ñi nga xamante ne nii ñooy teew ci stade bi ah Thierry Thierry yóbbul Thierry te ngi daj lépp ki ca ca ah ba da nga toog ci yi waaye tamit ay ki muy dajeel oh zoña ñang mbaaloo ndeysaan kii rakam mbër la zoña zoña mooy mooy rakam ndeysaan ñang mbaaloo yaa ngi dajeeg céeli céeli de ku ne xam na ne du laal suuf day naaw waaye ñang mbaaloo boo doonee booy ñaar di am jom di nga am ndax borom jeex bu jeexee jeex na yéen ñaan ku njëkk a ma jox la nga njëkk a wax. awuzu billah bismillah ina wal yàlla ma santee yàlla julli si bi maa ngi sant assistance bi fi teew yëpp. Hmm. di sant euh, Aliou Cissé suma grand frère. di sant Abdou Lahad Ndiaye suma grand frère suma mag suma lépp. wax dëgg hmm. yàlla gis naa taxawaay bu baax a baax a baax a baax. Thierry hmm. li ma koy wax bëriwul. Thierry boo dëggalee sa bopp man ak yow cinq minutes duñ ko bëree laa mujj a. taal cinq minutes tuuti na de. barki Seydina Mouhamed mun na ko bañ a mat sax. ah bu metti te ci moom laa ko war a wane. billaahi la Thierry. auzu billaahi mina seytaan. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw bi ñu sant yàlla jërëjëf ci yonent bi di sant suñu ñaari waay. man de damaa mel moo tax day sant yàlla na ko fi mu nekk yàlla na suuf seet ci kawam. di ñaanal maire bi gudd fan ak wér gu yaramam di ñaanal Diaw promoteur maa ngi koy bu baax ak laat maa leen di bu baax a baax di sant euh, Ndiaye Karo et sanitaire ah Thierno mu ngi lay sant bu baax a baax sa liggéey rafet na quoi parce que tey mënoon nga jël sa xaalis dem investir ko feneen nga ñëw dugal ko ci kon ñu ngi lay jaajëfal di la xam ne sa entreprise bi lépp Ndiaye Karo waaw Ndiaye Karo ah. entreprise bi entreprise ne ci yàlla la ko yàlla defal ci barke Sëñ Fallou ne tout jik yàlla defal la gudd fan la dooleel la. barke sëñ Fall. waaw waaw Ndiaye. waaw lam yow rek. waaw nga xam nga bu ñëpp ma defoon ni yow. lam mu mel ni mu mel. kon lam day dellu ci kanam. lay la kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. di ñaanal may ñaari junni. di ñaanal sécurité bi di kii di ñaanal sécurité bi ah. xam nga di leen ñaanal ñooñu tam xam nga. Mm-hmm. ñu leen di ñaanal bu baax a baax si seen taxawaay rafet na. yow yow kii ni la damaa tëj nga commencé sant sécurité bi. non non non man man man maay ceeb bu ma xamul dégg na. waaw. kii li wax du góos du baax. nee li mu mel yëpp ci yow la koy fayoo. man damaa mën fomm. da damaa mën fomm. waaw. <laughs> la ilaha illallah. man damaa mën fomm. waaw. kii na dëggal boppam rek. bu dëggalee boppam man ma dara lu ma koy wax barke sëñ dafa mën fommee fii la koy wax rek. Ah. boo duggee ci séeréer si nga laaj ñang baala mooy gan làmb moo doy waar rek. mais barki alxuraan ñu ni bëre grand combat laa waroon a bëre billaahi moom nag maa koy sadd bu baax parce que grand frère la moo ma jig si làmb ba muy bëre ak Baba Naar maa ngi si bor bi xaar mbalit eh. kon su yàlla defee mu may ma chance dama koy sant bu baax a baax a baax di nga wax mu dëggal boppam bu baax a baax man dama xeex si damay xeex si damay bëre si wax ni Bamba daa am lu ma gën a ñor yi nekk ginnaaw raay ak euh, sa autorité sama mbokk ñaama ñaamari na ngir yàlla war a suuli ñu jàppal ma ci bolo gi parce que man loolu rek laay calculer benn séeréer bi billaahi la si dañ ma assuré loolu rek ma assuré combat bi lépp tas parce que là daf ma sas quoi combat dama war a tuuy stade bi yëpp billaahi Pape Ñambe jàppale Pape Ñambe Pape Ñambe Waly Ndiaye Ousmane Saka Dieng di woo ñëpp képp kuy di wax suma grand frère yi nga xam ne ñoom laa bokkal deret ñu bokk maa mënuñu ak soxna mbay ñoom rek war nañ eh, na da sa tikkim ñu may am 12 ans Sénégal nekk champion daal bi ngay bëri Baaba Naar mu lay seetaan maa la dàq bëre maa la ëpp fit te baal di suuflee boo taxaw ma fekk la. waaw yaa ma fit man loolu daf may neex man damaa bëgg ñu daje parce que damay bëre ak ay leen dóor ñuy daw ba ma juum daanu damaa bëgg nag kuy ñëw comme man ñu daje xeex bëre. neeram eh. kii ba muy bëre waay boobu damaa xalaat a bëre. man 2020 laa commencé bëre. barke Seydina Mohamed. bu arbitre suuflee fu mu ma fekk ko. Eh. ah kon loolu neex na parce que man loolu laay moo dali ko fi cooli jeex. wooteel waaw di woowaat comme gars rek képp koo xamante ni autorité nga wax ak man muy ginnaaw raay wala njàmbur bi ma dëkk maa lay woo nga ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax parce que man problème boobu kese laa am di ko yéeg añ bi ñu géral ma lépp bu desul lu man ak Thielé arbitre wàccee ah. ma duma ko daan ko maa ngi woo société bi ma nekk muy ban muy waa Ndindi Cargo waaw di leen wax ñu jën boloog yëpp xam mm-hmm. di woo Baye Mor Sandaga mm-hmm. di woo jili jili jili transfert. waaw woo bu baax a baax. Hmm. di woo ay ñoom euh, Malick Ndiaye. waaw xam nga Ndongo Sène borom Colobane. ñaata kaar. non man man man mbëru gox laa su ma jógee ñëpp jóg. bu ma jógee ba non man ngi lay dégg de avance yaa ngi fekk. jaww Sandaga man bu ma jógee. saa ngi lay dégg benn tali lay jóg oh. man man mbëru gox laa. waaw waaw. waaw. et eh,